suñu dañu commencé tey ci xissatu Ibrahim dañ commencé ci histoire yonent yàlla Ibrahim ci suuratu Mariam aaya quarante un quarante un nañ commencé foofu tey aaya quarante un yonent yàlla Ibrahim moom la ñuy wax xalilullah wala xalilu rahman muy yonente boo xam ne ci ulul azmi mina rusul la bokk ulul azmi mina rusul ci la bokk da yonente boo xam ne tim tawhidul uluhiyya daj na ci lu nekk ngir ay mbokkam bàyyi xërëm yi ñuy jaamu ma bañ rek dëggal ci bopp <clears throat> yàlla nag fii day nettali benn waxtaan mu doxoon ci diggante baayam ak moom ba mu discuter ak moom ngir bëgg mu bàyyi bokkaale ñëw ci diine bi <clears throat> loolu la ñuy yàlla jàngale fii ak fa ñu mujjee nga gis ne nit ki tawhidul uluhiyya lu am solo mooy wéetal yàlla suñu borom subhanahu wa taala ndax yonent yi yàlla yónni yépp seen seen woote bi foofu la commencé dañ commencé woo nit ñi ci tawhidul uluhiyya lañ commencé eh, woote mooy yàlla rek lañ war a comme ni ko alquran waxee iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ñoom foofu lañ commencé seen woote moo tax yàlla wax ci alquran wala xad baaxnaa fi kulli ummatin rasulan an yaabudullaah wa yajtanibu taaxut yàlla mu ne xeet wu nekk yónni naa fa benn yonente lu ma ko wax mooy nañ wéetal yàlla te bàyyi yi ñuy jaam ak taaxut <coughs> mooy lépp lu ñu jaam te du yàlla mooy taaxut kon ay yàlla foofu loolu la fay wax baada audu billahi min ashaytan rajim yàlla mu ne واذكر فاتلك يا محمد في الكتاب تاع القران دي ابراهيم اسوار يندي على ابراهيم يعني انك فاتلك اسوار اذ قال ابو وخي استغفر من انه من ابراهيم كان نكون صديقا دي نبي ينتي ابي ينت يالله من لم نمسوا دك لا ينتي على ابراهيم عليه الصلاه والسلام لم نمسوا دك لا yàlla nag di nettali yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko histoire am fàttaliku ko ndax moom ku dëggu la woon ba pare nekk ab yonent <coughs> moo tax yàlla mu ne ko waskur jàngatal fàttalikul fil kitaab bi ci téere bi de na siddiqan di waaju dëgg ju koy dëggal lu mu la mas a wax dëgg la lu mu ko mas a wax muy dëgg mu dëggal ko nabiyante ab yonent histoire baa ngi door a commencé. yàlla ne ko if xaala ma mu waxee li abihi bàyyam yaa abati yow bàyyi sama li ma taabudu lu tax ngay jaam maa loo xam ne laa yasma déggu la tudd la mas dégg wala loo xam ne yóbbu sunu gisu la te du la mas a gis wala yoxu ni jariñu la te du la mën jariñ an ka ci yow soñ am dara de Ibrahima <clears throat> fi mu commencé fa am solo dama ne waa bàyyi lu tax ngay jaamu loo xam ne du la dégg du la gis amul na booy jaamu da ngay jaamu ku lay dégg di la gis di la amal na njariñ waaye du jaamu ku la amal njariñ waaw bu la amal njariñ bàyyi ko te li wax nag lu dëggu la wax ju yéeme la lu tax ngay jaamu loo xam ne du la dégg du la gis a mënul la dara nit ki kay booy sonn ci moom da lay mënam wala nga de ko yaakaar mu mën a la dara wala nga di yaakaar mu mën laa gis sax waaye du la dégg du la gis te amul la benn njariñ loolu amul njariñ Ibrahima la wax bàyyim yàlla mu ne is xaala ba mu waxee moom Ibrahima li abi ñaal de yaa bati yow bàyyi sama li ma tax ba lu tax ngay jaam maa loo xam ne laa yes moo déggu la tudd la a dégg de wala loo xam ne yóbbu suru gisu la tudd la mos a gis de amul jariñu la tudd la mos a xanaa kat yow sooy am dara de amul la ko mag mu nekk mu kàllam bu demee bay jël taam di ko def ci yenn yi war na koo jar yenn taam yi mu di ko def ci yenn yi war na jar ah bàyyi ji déggul Ibrahima ne kon tey Ibrahima ne ko yaa abati yow bàyyi sam inni man de qad jaa'anii mina al-ilmi am naa ci xam-xam loo xam ne maanaam yi ati te amoo ko de fa toog nga ne kon toppal sama gannaaw. Eh, di ko ma wan na suraatan sawiyan yoon baax wi de yoon wu jub bi ko pap xam-xam lu ma jaam amoo te ko xam rek ko te ko xam rek war a jiite léegi topp ma ma wan na yoon wu baax topp ma waaye fii bàyyi ba yu bëri wala yaay yu bëri ak seen doom yi rëy moo tax duñ nangoo topp rëy yow bu nekkee maa jur rek bu nekkee maa jur lu tax di ma yedd ah kay yedd la rek wax rek bu wax jàpp léegi nag loolu moom Firawna ko jëkkoon a wax alam nurabbika fiinaa waladan yow xanaa du yaa fi dugg barki démb loolu la Firawna waxal Muusa kon Ibrahima ne yaa abati yow bàyyi sama inni man de xad jaani dikkal na dikkal na ma wala am na mi ne am ni ci xam-xam maa loo xam maanaam yati ko loo xam ne yow amoo ko de dikkalu lu de fattabi ni topp ma ahdika ma jubbanti la siratan sawiyan ci yoonu baax bi de ko papa xam-xam de am naa ci loo xamul te nag ko xam rek war a jiite te maa laa ko la xam-xam ñëw topp sama gannaaw ma wan la yoon bi waaye lii bàyyi yoo xam ne yàlla bëgg na ci moom lu baax moo koy nangu baay joo xam ne yàlla bëgg na ci moom lu baax moo ko nangu waaye baay bi yàlla bëggul ci moom lu baax du ko nangu waaye nit tim booy woote ci lu baax bul gaaw a découragé Ibrahima bàyyi woon de mu waxaat ne ko yaa abati yow bàyyi sama laa ta'budu seytaane bul jaamu seytaane de ak loo mën a loo mën a def lu mën a am lu man a xew seytaane bu ko kenn jaamu bu ko jaamu yow ndax inna shaytan mom shaytan kan na kon kan nek na li rahman ci yalla de asiyam ku moy yalla la shaytan mom falul ya ndax mako dekk mo kon mo nako yo pap fexel bu top shaytan fexel bu top shaytan ndax shaytan mom dafa mero ko borom ba pare dafa moy yalla ba pare te tubu delu bu ko ko moy yo pare ka moo tax mu ne ko yaa abati yow bàyyi sama laa taamuri bul jaamu ak seytaane seytaane inna seytaane ndax seytaane kaana nekk na li rahmaani ci yàlla de asiyan ku muy yàlla lay doon moom seytaane day mooy yàlla yaa abati yow yow bàyyi sama inni man de axaaf ragal naa an yamassaka mu laal la adaabun mbugal mina rahmaani bu jóge ci yàlla fatakoon boobaa nga nekk li seytaane ñeen seytaane wala yéen di xarit de pap man de bëgguma nga am naqar ci àdduna wala àllaaxira bëgguma nga am naqar wala mbugal dal la kon kon léegi ni ñuy def mooy ne boo jaamul yàlla rek topp seytaane boobaa da ngay mujj nekk xaritu seytaane te seytaane nag ku sa fan man di axaafu ragal naa an yamassaka mu laal na nga nekk li seytaane ne seytaan wala yéen di xarit de moom pexe lu a xew bu ko jaamu saa yoo dem sa kon baay ji tontu na Ibrahima wax na li wax ba pare baay jaa ngi tontu xaala mu ne moom baay ji araax bu ndax dangaa bañ dangaa bañ ante yow Ibrahima an alihati sama yàlla yi de ah yow dangaa bañ sama yàlla yow li ma li ay yàlla daal yow jàppee woo ko yàlla da compte da nga leen <laughs> ah da wax lu amul. foofu la commencé moo tax mu ne xaala mu ne araaxibun anta ndax yow ya Ibrahima da ngaa bañ ana alihati sama yàlla yi de ndax du benn yàlla yàlla yu bëri la yàlla yu bëri lañ defaroon teg ko ci génn kër ñëw di ko jaam moo tax mu ne an alihati sama yàlla yi bu doon benn yàlla def na an ilahi sama yàlla bi <clears throat> yaa Ibrahima ya yow Ibrahim la in lam tantahi gén gën naa boo bàyyiwul li nga nekke li nga nekke boo ko bàyyiwul la arjumannaka danaa la sànni wala danaa jot ak yow de wala danaa xeex ak yow xaala mu ne ko araaxibun moo dangaa bañ ante yow Ibrahima an alihati sama yàlla yi de la in lam tantahi gën naa boo bàyyiwul li nga nekke li ngay def deqas yalla yi la arjumannaka danaa la danaa danaa la sàndi de wax jurni demal sax maliyan la yo ab diir yow gis ci kër gi joon nga dem sa yoon léegi waajur nañ da nga jek def ñu naan kii génne naa ko sama kër yonte yàlla Ibrahima loolu la ko bàyyi wax ne ko li nga nekké ni diine ci bes li nga nekké bo tay ko sa tank dinaa la bëggal xale bu juddoo ko naan te woote diine bees waaye ne la boo teggoo sa tànk danaa la mbugal xaala mu ne arraxibun anta ndax da ngaa bañ suñu yàlla ibrahima yow ibrahima la in lam tantahi gén ñaare boo bàyyiwul li nga nekkee la arju man naka danaa danaa la sànni de rey mooy danaa la rey rek wax jur sori ma sax ma li ab diir jógal nga dem léegi sa doom bu la sonalee ci kër gi wala beneen dem ba sama mer mi feex diir Google. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ನಕು ಖಾಲು ಹನುಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಲಾಮನ್ ಆಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜಮ್ ವಾಚಿ ಚಿ ಅವಡೆ ದಿಗಂತ ಬಾಯಲ್ ತು ಅಮ್ರ ನಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಮುನಿ ಜೆಕ್ ಜೆಕ್ ಬಾಯಲ್ ತು ಖಾಲ ಮನೆ ಸಲಾಮನ್ ಆಲಕ್ಕೆ ಜಮ್ ಎನ್ನ ಚಿ ಅವಡೆ ಯೋ ಸೋಪಾಯ್ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರು ಲಕ ರಬ್ಬಿ ನಾನು ಆಲಕ್ಕೆ ಗುರು ಸೋಪರಂ ಇನ್ನು ಮಂ ಸೋಪರಂ ಕಾಯನೆ ಕ ಬೀಚ ಬಂದೆ ಹಫಿಯನ್ ಸೋವಾಯ್ಲಡೆ yalla so so so way dama su ko ñaan dum delo lu ko sama ñaan may ba legi dal kon ko genn nga ma ko pap ma ni dama yalla da jamm yalla da jamm dina la jéggal ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala sama borom xaala mu ne salaamun jàmm alayka yalla wacc ci yow sama waajur sa astaghfirullah rabbi dina la jéggalul yàlla innahu moom yàlla kaana nekk na bii ci man xafiyan di ko baax ci man de aywa boo xoolee fii yonent yàlla ibrahim wax na ak bàyyam ñeenti yoon wax na ak bàyyam ñeenti yoon aywa léegi Ibrahima bàyyam génne na ko kër gi bi muy dem ñaanal na ko ne ko danaa la jéggalul de Ibrahima ne wa a'tazilukum maa ngi leen di sori maa ngi dem baleen waa wa a'tazilukum maa ngi dem baleen fi maa ngi dem de wa maa ta wa lépp lu ngeen di jaamu min dooni lay bàyyi fi yàlla de yéen ak lépp lu ngeen di jaamu bàyyi fi man suur naa ko maa ngi dem waa dooma maa ngi ñaan rabbi sama borom de asa amaan allah akono ma bañ a nekk bi rabbi soqiya yàlla bañ a nangu sama ñaan gi de yàlla daf nangu kon bi muy dem li maa ngi fi bàyyi dem lépp lu ngeen di jaam lépp lu ngeen di jaam man doy Ibrahima loolu lay te maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne am naa yaakaar ne sama ñaan gi du ko du ko du ko delloo Ibrahima ne wa a'tazilukum maa ngi dem bareen ci de wa maa tad'uun ak lépp lu ngeen di jaamu min doon lay bàyyi fi yàlla de waa dama maa ngi ñaan rabbi son borom hasana hasa amaana allah akuna du ma nekk bi duwaay rabbi de sama ñaan gi yàlla bañ ko nangu de aywa falamma atasalum yàlla mu ne ba nga ne bane ba dem de wa maa yaabuduna ak la ñuy jaamu min dunillahi bàyyi fi yàlla de yàlla mu ne booba wahab naa may naa ko lahu moom ibrahima de isxaq yonent yàlla isxaq mu nekk doomam de wa yaqub yaqub nekk ab sëtam de wa kullan kenn ku mën a dem ci ñoom ñaar jaxal naa def nañu yàlla nab yéen mu nekk ab yonent de waaleykum salaam ibrahim bi ko bàyyi ji génnee kër gi daw na yaram ndax bàyyi bu génnee doom këram rek ah, léegi yàlla mu ne ba mu leen fa bàyyee dem ci laa ko may Isxaaqa muy doomam ma may ko Yaaqooba muy sëtam yàlla mu ne falammaa atasalahum ba mu leen fa bàyyee dem de wa maa ya'buduuna ak la ñuy min doon lay bàyyi fi yàlla de wa yaquba ak yonent yàlla yaquba leen leen ñoom ñëpp muy ibrahima ak isxaaqa ak yaquba may nañ leen man rahmatinaa suñu yërmande ji de yàlla mo la jox naa ci sama ne wa jaal naa ñu def lahum pour ñoom lisaana sidqin aliyan làmmiñ wu kawe wu dëgg loolu mooy lan mooy ngay xol yonent yàlla ibrahim bi ñu ci àdduna ba tey te nga ni nii fii tey ci mbuur di ko wax di tudd jikkoom di tudd ay melokoram di wax lu baax ci moom yàlla suñu borom noonu la mel yoo ko nekkalee rek mu nekkal même sa jëmm mën na fee jógee waaye lépp daf koy des sa mën na fee jógee lépp loo sàncoon bàyyi ko fi yàlla suñu borom subhanahu wa taala mën na la ko mu si moo yàlla mu ne woo xam naa may nag lewum ñoom de muy Ibrahima ak Isaaxa ak Yaquba mi rahmatina suñu yërmande wa jaan naa def nañ lewum ñoom pour ñoom lisaana siddiqin làmmiñ wu ka làmmiñ wu dëggu aliyan wu kawe de mooy nit ñi fu ñu toll di wax ci ñoom lu rafet fu ñu toll di wax ci nit ñi lu rafet ay yooyu yàlla suñu subhaanahu wa taala dañ ko jàngalee am na lu ci mën a jëlee comme ay jàngat comme ay leçon leçon yi lan la mooy ndeke arab yi ci yonent yàlla Ibrahima lañ jógee ndax moo jur Ismaïla Ismaïla moo meññ kon liñ mën a jàngee ci aay yi mooy ne yonentu yàlla Ibrahima de maam mooy maamu arab yi ndax boo jur Ismaïla Ismaïla indi arab yi loolu bokk na ci lañ ciy jàngee bokk na ci lañ ci jànge ba tey yéeféer yi ñoom dañ doon wax naan suñu diine bàyyee suñu maam yi nuñ koy bàyyee nuñ koy bàyyee suñu diine maam yi suñu bàyyi mënuñ ko bàyyi bokk na ci li ñuy jàngee ci ay ba tey mooy toppandoo toppandoo mooy roy kon ñoom foo leen masaan fekk rek na ne jaamu leen yàlla ñu ne suñ maam yi la ñuy jaamu inna wajadna alay abaana suñ maam yi la ñuy jaamu waaye ñoom duñ jaamu yàlla dañ ko daan wax ay mu ndaw kon bu amee loolu yonent yàlla Ibrahim ba tey yàlla mi ñuy wax ci saaru yi ne ñoom boo leen waxee jaamu leen yàlla ñu ne li li bàyyi maam nekkoon ci la ñu nekk li bàyyi ak maam nekkoon ñun ci la ñu nekk moom la ñuy jaamu loolu lañ leen wax bokk na ci liñ jàngee ci aaya bi yàlla ne na Ibrahima ku dëgguloon nekk ab yonent bokk na ci liñ jàngee ci aaya bi mooy bi mu waxtaan ak bàyyam parce que wax bi nooy jëm dañ waxtaan ak bàyyam gis ni mu doon waxtaan ak bàyyam waxtaan mu neex yaa abat ko xasu ko mu def ko dara la kàttu ko tegg ñu ko rafet ko baax la jël di waxtaan ak bàyyam mooy Ibrahima alayhi salaatu wasalaam Ibrahima xërëm yi ñoom mu doon jaamu ñett moo ko ci gën a yéem moo tax ñett yooyu la wax yow looy jaamoo koo xam ne du dégg doo gis amul la njariñ loolu la wax bàyyam looy jaamu loo xam ne déggul gisul te amul la benn njariñ la tax nga di ko jaamu loolu wax bàyyam aaya dañ ci jànge mooy doomu aadama war naa mooy te ko seytaane ndax bari na lu nit def seytaane ko def loolu boo ko boo toppee saytaane rek man di lay jafe-jafe Ibrahima bokk na ci li wax bàyyam ne ko jaamu xiram de ndax amut benn mujj amul benn mujj jaamu xiram kon yooyu ay mbir la yoo xam ne ay yi weesu ma ne sa ko cee jàngat kon yàlla saa yu la jaralee rek yow doo ñàkk Ibrahima bàyyam génn na ko kër gi mu dem bi mu demee ci diggante bi ci yàlla ko yàlla wërsëgal soxna soxla may ko Isxaaqa ak Ismaayla ba may ko Yaaqoob ba tey mu nekk sëtam kon histoire Ibrahima bi foofu la jeexee bi ci topp mooy yonent yàlla Muusa nga xam ne moom turam moo gën a bëri lu mu ñëw ci alxuraan tur yonent yàlla Muusa moo ci gën a bëri ci alxuraan muy yonente boo xam ne dem ko sonnoon la ci woote bi kon loolu lu mat bàyyi xel histoire boobu la yàlla jàngale fii loolu yàlla Muusa moo tax yàlla mu ne waskur fàttalikul yow Muhammad alayhi salaatu salaam fil kitaab yi téere bii de Muusa yonente yàlla Muusa innoo moom yonente yàlla Muusa kaana nekkoon na muxlasan ku ñu satal ku sa wecc ku ñu sell moxlas moy kuñu ñu sellal ku ñu wet moxlis moy ki koy def wa kana nekkoon na mom yonte yalla Muusa rasulan Mom, ab yonente nabi yonte kuñu jox xam-xam de moom moo leen andi yonente yàlla Muusa ku yalla sellal ba pare mu waskur yow Muhammad kitabi tere bi musa musa innoo moom Moussa kaa nekkoon na muxlasan di ku ñu sellal wa kaa nekkoon na rasulan di ab yonente nabiyan di ku ñu sol xam-xam de moom Moussa yàlla mu ne wa naadaynaahu woo nañ ko min jaanibi tuuril ayman ci côté montagne ay tuur ca côté ndey jot ba lañ ko wooyee de wa qarrabnaahu najiyan mooy ñu def ko nii déy ni mooy déy ñu jegal ko xëcc ko ba mu ñëw ñu téye ko loolu mooy dee loolu yàlla Moussa dafa nekkoon ak Firawna Égypte yàlla dogal mu rey ko te tey Firawna di ko tëb Firawna di ko tëb kaat maa ngi dem ah mu daw jógee fa dem Madian Madian mooy dëkk yonent yàlla Suhayb alayhi salaatu wasalaam ba mu fa demee yàgg na fa am na fa fukki at nekkoon ab sàmmkatu jur li sàmm bi mu paree yonent yàlla Suhayb may ko doomam muy ñibbi Musa amutoon dara ñàkk moo taxoon mu doon di sàmm ñu di ko fay bi mu sàmmee fukki at ba pare bay ñibbi ñu may ko soxna ba mu dem ci yenoon ak yan def ak yooyu kon alal takkul soxna de ñun di yaram Moussa xam nga nu mu def ba am jabar ñëw di liggéey fukki at ñu may ko jabar liggéey amatul di sàmm jur xar nag bay ba mu jeex ñu may ko ba muy ñibbi ca yoon wa ko yàlla def ab yonente kon nga gis na jigéen di ko maye di laaj yenn yu bëri yi jëru ko yenn xaalis yu bëri yi jërta laaj waaw sëy moom boobu boobu dee barke rek laajal la yem waaye bu laaj yenn xaalis yu bëri yi Bolanya kaji kaji beri mana ndax yonent yàlla Moussa sàmm na bañ may ko soxna te amul dërëm mu ñibbi di ñibbi ba mu ñibbi te yoon lañ ko def yonent waaw moo tax mu ne wasbur fàttalikul fil kitaab yi téere bii de Moussa Moussa innoo moom Musa kaana nekkoon na mox la sant ku ñu satal de ku ñu wa na rasulan di ab yonente nabiyan di ku ñu soxla xam-xam de yàlla mu ne war dee naa woonañ ko min jaani bi tuuril ay mene ci côté yi nday jor montagne wa tiin wa zaytun wa tuuri siiniin moo ne wi yàlla doon waxe Muusa moo xarab naahu xëcc naa ko moom jege de na ci yoon may déy moom de nii mooy déy nii nga xam ne wax kenn du ko déy yàlla mu ne wa wahab naa may nañ lahu moom Muusa de min rahmatina sunu yërmande ak xaawu ma haruna haruna nabiyam mu nekk am musa haruna moo kan musa Moussa haruna moo musa Moussa ah moo mag Moussa moo nekkoon magu Moussa yàlla kan musa Moussa yónni intervention bi gëna am am doore ci kaw suuf intervention bi gën a am doole ci kaw suuf mooy intervention bi Moussa defal magam moo tax yàlla kii damaa bëgg def ko yonent ko yonent rabbi ishrah li sadri wa yassir li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli ñoo bokkoon ndey ak baay waaw Haaruna mag ko moo màggee moo tax bi Firawna di rey moom mu mucc ca léegi bi loolu amee yàlla def ko ab yonent moo tax yàlla mu ne woo oh, xam naa may nañ ñun yàlla de lahu moom Muusaa min rahmatinaa gële ko ci suñu yërmande ak xaaw mbokkam ma Haaruna Haaruna nabiyyan mu nekk ab yonent de ndax moo ne yàlla sama lam wii mënuma wax bu baax te wa axi Haaruna huwa afsahu minni lisaanan ma wa dàq wax maa ma dàq wax fa arsilhu ma'iya ridan yónni ko mu ànd ak man yàlla dafa am yonente mooy intervention bi gën a am doole ci kaw suuf nit sax léeg-léeg mënoo ko ñaanal sax ba mu nekk ab jullit wala nga ñaanal ko ñaanal ko ba mu nekk borom xaalis waaye Moussa moom ko def mu nekk ab yonente yàlla def ko yonente moo tax mu ne boo xam naa may nañu yàlla la Moussa de min rahmatinaa jële ko ci suñu yërmande ak xaw mbokkam ma Haaruna Haaruna nabiyan mu nekk ab yonent de am na ko aay yooyu niñ ciy jàngatee mooy ne niñ ciy jàngatee mooy ne yonent yàlla Muusa ku yàlla selloon ñaareel ba yàlla def na jox na ko xam-xam ba pare def ko ab yonent bokk na ci ulul azmi mina rusul ulul azmi mooy Nuux Ibrahima Muusa Iisaa ñi mooy ulul azmi mina rusul yonent yi gënoon na dogu ci yonent yi bokk na ci dañuy jàngee fii ba tey mooy ne yàlla subhaanahu wa taala foofu la waxee ne moom ca Tuuri Siinaa boo ko waxee dañ ciy jànge ba tey Moussa gisul yàlla waaye am na lu mu yëg gisu ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala kenn du ko gis ci yàlla kenn du ko gis ci àdduna àllaaxira moom danañ ko gis waaye àdduna kenn du gis yàlla moo tax Moussa mu ne rabbi arini anzur ilayk dama laa bëgg a gis xaaral dara nii man gis ma ah mënuma Musa mel ko xaw sik sak mo nako wala ki walakin zuri dal jabal xoolal montagne bari ni mo re sama le nga ko wàcc le ko ko fa ha ya xol na mi muy def yàlla moom kay ñoom montagne dara mu def do ba wàccee leer gi ci montagne bi rek mu do mo sa lo wax قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صاعقا فلما موسى daal di xam falammaa afaaqa qaala subhaanaka dootuma ko ñaareel de tuub naa ko dootuma ko defati kon aay yooyu loolu lañ ciy ñu ñëw ci beneen yonente muy yonente yàlla Ismaayil alayhi salaatu wassalaam te mën naa am foofu lañ ñëw bu soobee suba suba danañ ñëw ak ginnaaw suba yëpp yàlla mu ne bu soobee yàlla danañ ñëw suba gannaaw suba waskur fàttalikul yow Muhammad fil kitaabi ci téere bi de Ismaayil yonent yàlla Ismaayil innahu moom kaana nekkoon na saa de xam loo xam lu mu la mës a def koy def lu mu la wax def yàlla nee na koy def. mam kay fexeel ba bu wax way bu waxe lum la wax daf koy wa kaana nekkoon na moom Ismaïla rasulan ab yonente de nabiyan ne ko ko ñu jox xam-xam de mom moy moo mat Isxaaq ñoom ñaar bi yonente yàlla Ibrahima amoon gannaaw bi mu defé timir ak passe ci la am ñom ñaar yi kii nekk doomam ki nek ab sëtam Ismaïla moom nag ci la arab yi soxee ko ci moom yàlla nee na lu mu la ma sax daf koy def moo tax mu ne waskur fàttalikul fil kitaab yi téere bii de Ismaïla yonent yàlla Ismaïla inno moom Ismaïla kaana nekkoon na saadixal waxdi lu mu la dig daf koy def wa kaana nekkoon na rasulan di ab yonente nabiyyan ku ñu jox xam-xam de yàlla ngi wax ba tey ne mel de wa kaana nekkoon na moom Ismaïla ya'muru ahlahu danaan digal waa këram de bi salaati ci julli wa zakat ak jox asaka wa kana inda rabbi nekkoon na ci borom mar yon ko ñu gërëm de loolu moy la wandi yalla ismaeil bako def dee li ko yàlla taggee nee na daan tek wa këram ñu tok julli jot mu ne jóge julli jóge ay julli julli julli borom kër gu nekk war ko def waaye da nga gis borom kër yo xamne ne ñu waa seen doomi sax yi sax dalal nelaw ñu dool julli sax ñemewuñu dool julli sax ñemewuñu kon nit ki war naa roy yonent yàlla Ibrahima ci lu mu wax def ko Ismaïl ma ñëwaat waaw maa ñëw ah yàlla mu ne lu mu la mas wax daf koy def dafa daan digal waa këram julli ak joxe asaka te kon loo ci déggee moo ne ñaari yëpp amoon na ni ñu koy defee ci islam ak ni moom nañ ko doon defee moo wóote yàlla mu ne ko bëgg naa ci moom bëgg naa ci moom da dégg léeg diw na bëgg naa ci yow waaye yàlla mu ne Ismaïl bëgg naa ci moom moo tax yàlla mën a ko fàttali kon fil kitaab bi ci téere bi Ismaïla yonent yàlla Ismaïla noonu moom Ismaïla kaana nekkoon na saadiqal wax di lu mu la mas a wax daf koy def wa kaana nekkoon na rasuulan di ab yonent nabiyyan di ko ñu jox xam-xam de a wa kaana nekkoon na moom Ismaïla ya'muru daan digal ahlahu waa këram bi salaati ko julli de wa zakari joxe asaka kon faati bu fajar jotee dellu yee Paa Koli bu fajar jotee deneen yeete sëñ Diouf deneen yeete Mansour Bouba Mor Kéema deneen yeete fajar ndax mooy bi gën a jafe Ismaïla da daal noonu la ko daan defee wër néeg yi wër jóg leen julli ji borom kër bu nekk war na ko roy ci man waaye man sama dégg benn waaye boo xam ne bàyyam da ko yee fajar mën na ko ba ma yee baa ci xayma yee ko rek mu kurfan paa bi paa bi daal waaw paa bi yee ko rek mu kurfan ko mu daal. <laughs> yàlla mu ne waskur fàttali ko fii kitaab yi téere bi te Ismaayil Ismaayil inna moom Ismaayil kaane nekkoon na saa def la wax lu mu la digoon daf koy def de wa kaane nekkoon jox xam nekkoon na moom Ismaayil ya'muru daan digal ahlahu waa këram bi salaati ci julli wa zakat ak jox asaka de wa kaane nekkoon na moom Ismaayil inda rabbi ci boromam mardiyan ci ku yàlla kontaan ci moom Ismaayil ak baayam ñom ñaar na suñu tabax kaaba bi. baax na mais na nga jël alxuraan bi na jël ci loolu xale bi dëgg ñaar tabaxoon nañ kaaba bi tax kaaba gi malaaka tabax nañ ko yonent yàlla tabax na ko tabax na ko ismaila ak ibrahima tabax nañ wa iz ibrahima min wa rabbana taqabbal minna innaka alim ñaar tabax kaaba bi ismail amoon na téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñaar cent trente cent trente sept amoon na mooy Ismaayil yaayam mooy Haajara Haajara mooy yaayam moo sanc màkk Haajara moo sanc màkk bi ñu gis tey moo ko sanc ndax jëkkëram dafa ñëw rek bàyyi ko daal dem. Ah, moo doon borom këram. moo doon bàyyi Ismaïla nekkoon borom këru Haajara dafa ñëw rek sanc dëkk bi rek ne ko ay toogal mu toog fa kon màkk gis nga barke ba fa nekk tey jigéen a ko sanc loolu mat a bàyyi xel Ismaïla mi màkk la faatoo ca Kaaba ga lañ ko rob mook yaayam yépp moom ñaar jam lii nag buñ ko waxee mooy boobu islaam amagul ñoom ñeneen diine lañ doon dund waaye foofu lañ ko rob ci kaaba moog yaayam ismail moom lañu az zabih zabih mooy kiñ bu ko yareen tëbaskee bu jàlloon rek xale bu góor bu juddu dañuy tëbaskee kon ñoom Moussa yëpp dem ñoom Moussa boobu ñoom ñëpp tëbaskee nañ leen waaw ah baayam dafa géntu ci nelaw ne ko doom kay ñoo ma ne ko ah mbir am na de mu papa am boko mu ne ko dama gént rendi la waaw mu ne ko rendi mu jigi yàlla ko wax mo wax waaw dama dafa li la yàlla wax waaw yàlla moo la ko digal wa dama dana muñ comme que yàlla la ko digal amul ben problème dama ah, ah? mu waaw moom jabar ñoom ñëpp daal. ay te demee ba tër ko ba bëgg rek Jibril ñëw andi am xar ne yàlla mu ne daf la doon daf la doon test rek waaye test bi dëggu la ab yonente lépp lu mu gént gis ko ci nelaw dëgg la yonente lépp gis ko ci nelaw dëgg la dëgg doon dëgg lépp lu mu gis ci nelaw rek dëgg la waaye bu dee ñun ñi rek ah yow tey boo xëyee ne damaa gën di dem oustaz ñu paaka ñëw dem paaka ci kasa gi ngay dee wala damaa gën di nga ma daaneel jàkk ji boo daaneel jàkk ji ne ñett waaye ab yonente moom lépp lu gis ko ci nelaw dëgg la géntu ñaari xaaj am na yu baax am na yu bon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne boo géntoo lu baax ñaanal yàlla mu may la ko nga nett ko sa xarit boo xëyee bu dee lu bon nga bu ko wax kenn kenn kenn kenn boo ko nettalee rek bu yéexee mu dal te côté bi nga tëddi woon nga changé ko waaw aywa kooku moo yonent yàlla Ismaayla ci gàttal moom bàyyi ñoo ne kon màkk ba la fay am tey bi daal di fa am kon bala ñoo tëj ñu fàttali ne fukki fan yu mujj yi tey lay commencé xiyaamul lay tey ku ko man yamuneer ku ko man defal ku ko mënul toogal koo xam ne boo ko defee bëccëg bi du amal du amal kenn njariñ du amal sa bopp ñu njariñ dama nga mel beneen bi mooy ñaan liñ ci war a def mooy allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ay sa mënoon yéen bi salaasa bu ma xamee ne tey la lan lay ñaan bi ne ñaan ñaan innaka afuwun afwa allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun yow suñu yow da ngay jéggale da ngaa bëgg di jéggale yàlla nga ma jéggal da ngay jéggale da di jéggale yàlla nga ma jéggal da ngay jéggale da ngaa bëgg te ñun ñëpp njéggal rek la bëgg yàlla bu ñu jéggalee rek ñu dem aljanna yàlla yàlla jéggal ñu ñëpp dugal ci aljanna kon ma ngi noonu tey lay commencé nu ko waaye mën a jaamoo baax na góorgóorlu